gisoon nañu aussi tamit benn benn polémique boo xamante ne yow waa soleil levant la ñu woon ndax aujourd'hui loolu c'est réglé maintenant. non féete na boor soleil mu mosuñu am problème ñàkk déggoo la. amay ah, mu génnoon nga yow di wax ne. fay waaw parce que lañ ma laaj est da defoon erreur wala nekkuloon erreur de votre part wala. non pas erreur de ma part. ok boo jëflanteeg nit ki. nga hmm. war ko yore. Hmm. doo ko téléphoné di ko nemmeeku. loolu de moo dox ci diggante bi ñàkk déggoo boobu ñàkk gisante ñàkk waxante communication doxul ci digg bi alors man ma toog ci émission ñu laaj ma ma wax ka nga xam ne nii donc moo jiite loolu mhm. bañ ko jëlee moom ci boppam nee na carrément euh, dafa am seen facteur yi ñu dugal di xaar ñu jox leen koppar gi mhm. pour ñu mën a ñëw gis si ma mais ci diggante bi bu ñu communiqué woon mhm. être sax loolu ñu ma laaj du ko fa wax d'accord parce que vraiment rafetul ci ñun suñu biir ñuy wax waxu xaalis. man maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. aujourd'hui aw ma aw ma ay problème d'argent wala quoi que ce soit allan dans ce sens en tout cas.